info de ouf ah euh, tey am naa info de ouf. <laughs> benn benn benn jigéen bu am 70 ans mooy doog am doom pour la première fois ci eh. àddina mu am doom. elle a 70 ans man bu am quadruplé. moom man bañ naa ko ba waxuma la sax laajuma la sax xalaat. wuy ba de ouf boo koy man bi ma gis 81 la am mu am léegi teg sa preuve. ay génne sa bas. ayca xoolal sama preuve ngi nii regardez en même ngi doog a ngi doog am doom. ah euh, bàyyil mu dem nga cangal ko nii rek yow it Papa Samba. Papa Samba daa nañ ko xool. Euh, en plein écran regardez. gis ngeen ko nii de 70 ans. elle a donné naissance à son premier enfant. Mm-hmm. et mardi bii la wax ni euh, elle ne se sent pas trop âgée pour devenir mère. nee na moom màggetul pour am doom. nit ñi ñoo impressionné ci na fait que mu am 70 ans xanaa ki mooy jëkkër ji ba pare muy doog am doom wala jëkkër ji daanaka ñu ngi mel ni ñu gàddu seen sët bi dëgg la ñi koy sëtaat voilà donc nee na moom am doom amul at comme quoi à n'importe quel âge mën nañu am mën nañu am doom mais moi que du ñëpp am chance bi mu am du ñëpp am chance c'est ça mystère mystère mystère mystère àddina la kéemtaanu suñu borom la elle a 70 ans mu ngi doog a am mu ngi doog am doom exception Euh, Baye Cheikh léeg-léeg saa su ne yàlla di wane ay kéemaan. wane lii yàlla wane moo wane boppam rek. loolu moo lay wan ne lu am rek yàlla. Baye Cheikh moo tax daal dëgg dëgg bàyyi xel yàlla am na solo de. xam nga ne lii moo tax daal tubaarkàlla tubaarkàlla. moom daal mi ngi noonu rek mbay. donc euh, regardez xool leen. j'attends nag la preuve de de kii. preuve de kéemtaan. waaw sama sama ndey dikkee. non mais mbay dama koy indi jeudi prochain ki du ma ko bàyyi nii <laughs> amaana sax. Ah, mais mais mais lii ça lii dafa impressionné àdduna bi yëpp. en fait ah le fait que ñoom ñu màgget ni à ce point euh, jabar bi am 70 euh, ans sax depuis que ñuy sëy mosul am doom. mais médecin dem ba am 70 ans doog a am doom. mais Pape Cheikh seetlu nga dara. Mhm. am na yenn kéemaan yoo xamante ne euh, jamono ju njëkk ja daanoo ko gis. Mhm. lii day wane ni que suñu dañ nekk mujjum jamono suñu borom daf ñuy gën a yee di ñu wan ni que moom moo ko mën. xam nga lii médecin du ko di parce que médecin nee na docteur bi dafa ne science. Mhm. à partir de même 45 ans jëm 50 ans ménopause nga. léegi suñu borom def lii xanaa ñu war a gën a yéemu nag mbay. wallaay dëgg la billaay dëgg la ça c'est vrai ah. te ci jamono ji lay xewee daanoo ko gis c'est euh, xoolal xoolal ni mu ko téye gëm téye ak bëggeel gi ak cofeel gi bay bi mooy premier doomam musta am doom c'est son premier enfant allah akbar mu ngi doog a am doom donc macha allah Euh, démb ba tey tout le monde en parle. dëgg la mbay ku ko amul na yaakaar. adduna bi yëpp ñu ngi koy wax. Ah. oui su nekkoon Inde naa dem ci xew bi. oui ah, man yu rëy yi laa bëgg. <laughs> jël micro booy. waaye doo fi bàyyi wax ko lu rëy wax ko lu rëy. waaw dëgg dëgg xam naa ne sa sol kii yooyu noonu seen yére yére yooyu ñuy sol. sama xam nga dëkk bu may dem damay dem damay damay yóbbu ay mesures d'accompagnement. sari sari nii nii bu ma fekkoon Mauritanie ba tey def naa grand boubou baag caaya ba. Oh. daal di koy càllale. waaw ah. mu wadd waaw mu féex Pape waaw mu féex rek mu féex Pape. waaw te daal kenn jiital mu féex rek min dëkk ba mu wàcc wàccee. ndeysaan ndeysaan ñoom Bamba ñëpp xam naa tubaarkàlla ñu ngi doon xaar Amadou Mbaye garmi waaye nag ay Mbaye nañ muñu rek. waaw ñu muñu rek. jet privé xañ na donc loolu moo nekkoon info de ouf bu euh, njëkk bi la femme elle a 70 ans mu ngi doog am doom kii yaa mu ne am na info de ouf mais elle n'a pas de preuve peut-être que preuve yi elle nous amène ça lundi information la xam sama sama sama sama xale yi ay yàqkatu information